A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bagi yi ñu ngi leen di siyaare bu baax Maka di asrarul quranul karim Ambil benn mbokk bu nekkoon mai. ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯಲ್ಲ ಮುಜೇಬುಲನ್ನು ngir ñu ci def ay sekre manam lu jam ci zikar tu yàlla manam bis bi nag ñu ñëw di lay indil ay vidéo yu ya am solo ci asmaullahul husna maanaam turu yàlla yi eh. tur bu nekk ñu indi ko jox la ci ab secret maanaam wala ay secret bokk yu solo yoo xam ne képp ko def incha allah rabbi di nga gis njariñ li te nag ñu ñëw indi leen secret bu solo ci tur yi comme nuñ koy waxee rek comme euh, niñ koy defee ci Maka TV bi di leen wax nag ngeen abonné ci chaîne bi ngir ngeen mën di am secret yang nga xam ne waaj am solo di si kartu mu am solo tey eh, tapi ini ini ñu ngi nam ma indi turu yàlla bi resah wax ya rasaax ya kasih in detail nekka noonu rek ba turi mat incha allah ñu ñëw ci yeneen i tur eh, képp koo xam saxal nga bis bu nekk nga wax yaa rasaahu nga zikkar ko 306 manam. ñetti téeméer ak juróom ben nga koy zikkar nen kep ko xam saxal nga ko ci manam bis bu nekk nga saxal ko 306 bañ koo bàyyi nee na sunu euh, dana ko wërsëgale dana ko jox wërsëg waaye it dana ko musal ay xiwal maanaam xiwal yoo xam ni xiwal saaxir lay doon waaye day doonit it xiwal koo xam ni xiwal yi baatin lay doon toujours daal ay xiwal day ñëw ci moom mu ni képp koo xam ne jàng nga yaar saw nga zikkar ko bis bu nekk vingt mara maanaam ñaar fukki yoon ne sunu borom dana ko jox wërsëg waaye sunu borom it dana yombal ay mbiram ci lépp lu muy yëngatu sunu dana dana ca def ak jàppandi képp koo xam ne it jàng nga yaar saawu fukki yoon ak juróom-ñaar ci aajo manam mu am benn aajo boo xam ne da ko bëgg suñu borom dafa bëgg suñu borom fajal ko aajo jooju mu jàkkaaral ko aajo jooju nee na kooku su jàppee ba sell yéene ci suñu borom fajal ko aajo jooju muy aajo ju mën a doon rek suñu borom dana faj aajoom jooju mu nekk lu am solo mu ni képp koo xam da nga am maanaam ku tawat moo xam yow ci sa bopp yaa tawat wala da am mbokk mu tawat nee na soo ko tiimee nga jàng ci moom yaar saax nga jàng ci yàpp moom yaar saax téeméeri yoon tefli ko na sunu borom dana waral jàngoro jooju nekkoon ci moom bokk na ci ngeneelam maanaam képp koo xam ne jàng nga euh, yaar saax yaar saaxu yaa fattaax non ko jang ya rasahu ya fatah ne yalla da koy yombalal wursak manam wursak day yomb ci mom lol yalla da koy ubil buntu buntam mi nga xamne euh bepp buntu tëjoon ci mom rek sun borom dana ko ubbil moo xam buntu wursak la mo xam buntu yu buntu mo na doon sun borom dan ko ubil ba wursak mom da koy yomb toujours mu ne ko koo xam ne jàng ci ñeenti koñu kër maanaam mbokk nga xam ne dafa yor këram mu jàng ci yaara saaxo téeméer yoon ci ñeenti koñu kër gi maanaam kër gu nekk euh, koñ bu nekk mu jàng fa téeméer mu jàng fa yaara saax yoon ba ñeenti euh, koñ yi mat nee na kër googu sunu borom dina leen musal ci ñàkk maanaam ñàkk moom den ci euh, dañ koy dégg waaye dun ko gis moom ñàkk moom sunu borom dina leen ci musal yàlla na leen ubbilit buntu sak ba xam te sut ci maanaam kër googu daal barke mom dana fa dana fa dana fa sax barke dana fa yom kër go am barke lay euh di len jajeul ba di tawlu foofu xamna ci benen tour inshallah allah rabbi ak ñariñam eh, ñu fas japp ko ni ba turi ya nga moy asmaul husna sama te inshallah ñu ni len yenen yu am solo waaye agi seeni jariñ kon di leen wax ngeen di abonné ci bi di tudd yàlla muy sikkar tudd yàlla mu nekk seen bu am solo euh, di leen jaajëf lu baax jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu